ñu dem gëstu contacter len xam exactement ce qui se passe en tant que sénégalais am sen conseil am sen consultance jot li nga xamantene mom moy mbir mi ñu xam exactement naka lañu koy exploiter mbokk raba rabat d'arrêt du dara lu vice de procédure bo xamantene nekul mbir mo xamantene les deux parties ñoko def nekul wa Ousmane Sonko nekul benen parti bi nga xamantene ne ñoo yóbbu pourvoi en cassation muy état bi cette fois-ci vice de procédure bi constat bi moy cour suprême ci bopam mom moko def loolu moy rabat d'arrêt nga ne kat dama koy top ci rabat parce que jàpp naa ne ki nga xam mom moy cour suprême ci bopam cour bi nga xamantene mo war a cour bi nga xamantene da am ay texte yo xamantene ñom ñoko ko définir ñoo wax nan la warademe démé moy loi organique bi nga xamantene mom moy déterminer cour suprême ni muy doxé loi yooyu da am nu mu tëralee ne àtte la wara démé atte yooyu noonu mu waxee ne noonu la ko tëralee moom cours boobu bu ko transgressé bu ko respecté wul bu ci wékkuwul kenn ci parti bu jàppee ne mbir mi kat teguwul ci yoon mën na def li nga xam ne moom mooy rabat d'arrêt mu ne kat bi nga xamante ne cour suprême jëloon na ko arrêté boobu dañ ko rabaata maanaam dañ ko kase nga xamante ne day nul Madame, li nga avocat président Ousmane Sonko jël nañ ko décision bi le 17 novembre fele nga xamantene ne cour suprême le président Siré Aliba, Abdoulaye Ndiaye comme comme conseiller Abdoulaye Ndiaye comme rapporteur pardon Fatou Faye Lecor comme conseiller euh, Aminata Diallo comme conseiller Ibrahim Assam,

yakul dara nag ci li nga xamantene nek nekk nañ ci moy parrainage yi nga xamante ñoo ngi koy parrainé ki nga xam mom moy mooy Bassirou Diomaye Faye donc on jongle sur tout les coins possibles on jongle en réalité ci bép fan bo xamantene japp nañ ne ñun menes na ci jakarlo ce régime là dañu koy def te ñu japp na ñoo am dëgg gis ngeen mbokk le 17 novembre mbir mi amana ci walum yoon li ñu tuddee yoon bokk mbir mi mënoon na fa yam xëy na bu doon vice de procédure amul mais lu tax vice de procédure am parce que dañoo jàpp ne dëgg moo ànd ak ñun te saa ñuy dem di gën di continuer di jàkkaarloog ñi nga xamante ne ñoom la ñu jàkkaarlool ñuy gën di seetlu ne ñu ñu ko séqal ay nit lañu yoo xamante ne deug nekul ci ñoom mo waral saa su ne dinañ def wala acte bo xamantene dina am bo xamne moy firndel encore une fois de plus que menes na nek porox ndol buñ mëna jaar ñun pour fatali len ne dëggul àndul ak ñoom et que dëgg ñun la andal et que nañ wax dëgg aujourd'hui par l'acte que vient de poser les avocats du président Ousmane Sonko en déposant le rabat d'arrêt ñoo ngi woowaat képp ko xamantene ne tu es un justiciable ñoo ngi woowaat ce régime là ñoo ngi woowaat la justice ñoo ngi les magistrats yi nga xamantene ñoo war a pour àtte ci ngalawaay joxaat nañ leen possibilité joxaat nañ leen occasion ngeen wax dëgg te yàlla rek tax ngeen wax dëgg ngir seen tëraayu bàmmeel waaye nag lan moo indi rabaadara bi ak lu waral mu am moom laa leen expliqué parce que comme ni ma ko waxee cour suprême moom moo violé ses propres règles te cour bi bu dee moom moo violé ay propres règles am day may ñi nga xamante ne ñoom ñooy les avocats du président Ousmane Sonko en l'occurrence dans cette affaire là nous ñu fait ce def li nga xamante ne rabat d'arrêt pour ñu annuler décision bi nga xamante ne cour bi de ko le 17 novembre. parce que loi organique bi nga xamante ne moom moo déterminer naka cour suprême di doxee dafa wax ne et mu njëkk a wax mooy amul benn délibéré boo xamante ne lii di cour suprême war na ko mën a def te nekkul ne délibéré bi ñi war a toog ñi war a former cour boobu pour war a magistrat beeg astafirullah président beeg juge conseiller ak ki nga xamante ne moom mooy rapporteur bi loolu yëpp boo cour bi li mu war dafa war a un nombre impair cinq wala sept juróom wala juróom-ñaar war waaye warta nok nombre pair te keroog li ñu gis mooy nombre per la dinaa leen wax lan moo tax parce que dañoo gis déglu leen bu baax li ma leen wax nee naa leen cour bi moom moo violé ay règles parce que moom cour bi loi bi nga xamante ne moo ko définir muy laal loi organique dafa wax ni moom cour bi warul la délibéré mukk lu dul dafa fekk ne moom cour bi li nga xamante ne ñoo ko composé ba ñuy délibéré dañoo war a nekk juróom wala juróom-ñaar maanaam dañoo ñu impair or dañoo gis avec l'absence de Aïssata jallaba, bi nga xamante ne dafa lànk ne cours bi un, nombre impair nombre pair la au lieu que mu cinq léegi quatre la ne serait-ce que par cela gis nañ ne cour suprême vice de procédure ñëw na ba pare ñu gisaat ne ndaw si nga xamante ne mooy mom signewul parce que signature yi ngeen gis te ñu génnee ko na cour suprême génnee na ko muy décision bi mu joxé dañu ci mentionné clairement que né Aïssatou Diallo refuse de signer comme dafa refuser bañ né du signer te bu signewul moy findel na kat mom responsabilité am engagé wul kon nekkatul 5 personnes 4 personnes ñoo rendre une décision et à chaque fois bu 4 personnes muy nombre pair vous rendrez une décision ci décision au cour suprême dañoo wax ne cour suprême mon ci boppam violé na li nga xamante ne moom ay parce que le président de la cour muy Siré Aliba bi mu rendre compte ne ndaw si Aïssatou Diallo Ba nee na du signer lànk na moom dafa waroon a uti keneen ku ñëw koo xamante ne moo war cour bi beneen magistrat benen juge ngir mu mën a voilà wala mu dàq atte bi ba beneen yoon ñu cour bi mat juróom ngir ñu mën a cette fois-ci bi cours bi manqué nga xamante nekatul nombre impair ni ko loi bi waxé mom Siré Ali Ba dafa violer li nga xamante mom texte les textes de la loi organique daal de rendre une décision alors que la décision est illégale parce que la cour qui a composé la décision qui a rendu cette décision là cette cour là est une cour ce xamante ces nombres sont euh, ñi nga composé ce sont nombre pair muy quatre personnes muy mom Siré Aliba Abdoulaye Ndiaye Ibrahima Samb Fatou Faye la koor ki ko waroon a mottali ba mu nekk impair di Aïssatou Diallo ba dafa lànk ne du signé lolou mo waral décision bobu baxul muy vice de procédure boobooy bi si té défaut de signature dañ la wax né la fay rendre invalide ben décision mais aussi da koy rendre irrégulier irrégulier parce que arabi comme niñ koy waxé képp ko xamante le juge conseiller nga dañuy bindu on signé

juróom ñu signé ñeent ñoo signé ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy cour bi te mention bi ñu def on signé ba pare bindu turam loolu rek faux la waruñu ko wan def parce que waruñu ci soo woon sax bindu turam muy beneen mbir moo xamante ne am na ci comme ni ma ko waxee léegi rabaadare mooy lan rabadare moy erreur de procédure bo xamantene ce n'est pas imputable au parti manam nekul ñi nga xamantene ñoo ñoo fo pour ñu atteler ñom ñoo def procédure bi déedéet ñu ne kat ñan ñoo def erreur de procédure bi ñu né c'est la cour suprême elle-même ñu ne comme cour bi kat respecté wul li nga xamantene mom moy loi yi nga xam ñoko définir né non la wara a atte ñu ne kat cour bobu buñ ko topé ci rabadare limu décider dañ koy cassé, war na mën a nekk waral ay avocat au président Ousmane Sonko daal déposé déposer à 15 h rabat d'arrêt à la Cour suprême. parce que en réalité cour bi ci mënta violer ses propres règles té en l'occurrence dans cette affaire là cour bi dafa violer ses propres règles en rendant une décision sur la base d'une cour composée de 4 membres or cour bi cinq la waron à wala sept muy un nombre impair Bon, mu waroon doon finalement 4 donc, doon nombre pair beneen bi mooy puisque déposé nañ ko ci lu leer ma dolli leen ngeen xam ko gis ngeen li tax rabat dara bi am solo mbokk yi ci ñuy est-ce que xam ngeen ne ñi composé woon cours bi décidé le 17 novembre muy Siré Aliba Fatou Faye Lecor Ibrahima Samb Abdoulaye Ndiaye bu ñuy defaraat rabat dara bi war a toogaat atte ci ñooñu ñëpp kenn du bokk ci cour bi sa à dire que toutes les chambres de la cour suprême dañuy daje tous les magistrats de la cour suprême dañuy daje ñu def li nga xam statuer sur rabat dara bi daal di koy atte bu ñu koy atte képp koo xamante ne magistrat nga boo xamante ne wala ci chambre yi nga xam ne ñoo nekk cour suprême la da nga war a teew sauf ñi nga xam ne ñoo àtte woon mbir mi Fatou Faye le corps Ibrahima Samu, ñoo du nous tok parce que joxé nañ seen xalaat ba paré dañ leen di ni sanni jox ñeneen ñi nga les autres présidents de chambre les autres magistrats voici là où c'est important parce que bañi jël mbir mi jox cour suprême muy de choisir membre yi ñun dañ ay réticence suñu bi ñu ci amé réticence bu nañu respecter procédure yi mais puisque nous respecter, wuñ procédure yi ñun dañuy puisque def nañ le 17 novembre nous des dañuy ñan tous les magistrats des autres chambres dañuy réunir nous mbir ces magistrats